président dafa ne démb mu ne il félicite des gens qui ont eu le courage de de de dialoguer métti na trop mais ils sont venus euh, défendre leur euh, leur position alors est-ce que yow da nga jàpp ne ñi choisir de ne pas dialoguer euh, dañoo def erreur wala ils n'ont pas eu le courage wala pression bi dafa fort ci ñoom dafa dafa dafa ñooñu dañ def erreur Maïmouna parce que gis nga politique nay weex waaye bu mu xeq wolof la c'est-à-dire politique del nangu del bës mais bul bës ba ci biir toujours parce que politique c'est un cheminement entre les grands principes et les petits arrangements sinon boo génnee loolu rek da ngay tomber dans le dogme te te diine sax dina am fi nga xamante ni day xaw a bàyyi donc man ñi nga xamante ni euh, dialogue ñëwuñu dialogue parce que ñi ñëwul dialogue li ñu doon wax xam nga pour la amul woon sens da nga dégg ku ne nag xamuñu les terme de référence mais ce serait xam nga nit ñi fan lañ doon man fan laa doon d'accord ñenn ñi bañ a dem mooy les termes de référence président déterminé woon ko ba pare neen kaay ñu waxtaan ci mais ubbi waxtaan dama ni la keroog man man man nga xamante ni parce que man nag benn paa daf ko yokk quoi dafa gis màkka mu xool mu ne ku yàpp président de la république da ngaa amul ak moom màkk <laughs> moom waxin la quoi pour dire que man dama xam charge président li ci nekk keroog ci salle bi ouverture bi gis naa nit ñu taxaw wax fëgg taabal ji kii ñu déglu leen mais dama wax ni tey ñii nga xamante ni ñooy l'opposition euh, qui se dit radical ak nu mun ci demee man dama jàpp ni amoon nañu li leen naqari woon lépp mënoon nañ ko indi toog waxtaane ko du tee li ñu naan sukk du tee yóbbu say oom boo génnee mën nga génn ba pare après kon dem ci li nga nekk mais li ma wax la parce que jaloog euh, euh, day mooy tax démocratie di respirer cest à que boo nee du ma dialoguer am na accord yi nga xamante ni am nga ko mais dialogue moo la ko may budul woon loolu mënoo ko am et ñun dañ koy wax dans notre concept on on nous dit que dialoguer ce n'est pas se renier dialoguer ce n'est pas se compromettre dialoguer c'est gérer les antagonismes mais, mais, de manière apaisée et civilisée dialoguer, et, et aujourd'hui président mënoo ko wax ni que situation moom wala wala dialogue dafa nekk lu bees si parce que moom en douze ans il a ouvert six cadres de concertation et deux cadres de dialogue donc kooku je pense que waxtaan dafa bokk ci li nga xamante ni moom euh, la moom la moom la moom la moom la moom la tàmm je pense que c'est ça qui justifie euh, démarche bi. mais li nga wax la man moom laa gëm. alors ñi ñëwul ci dialogue bi def nañu erreur.